nekk États-Unis euh, dañ ko wax na na moytu mukk teg ci sama der ay wax yow xam ne rafetul donc man euh, quel que soit x duma wax mokk ci moom lu ñaaw te dama ko yéene jàmm xëy na damaa jotul ci moom rek. ci diggante joola ak séeréer moo tax ñu wax loolu wala ci diggante lan moo tax ñu wax ko. wala ci lan moo tax ñu ñu wax loolu. bu mu wax ci yow lu lu. Euh, bokk na ci certainement am na kenn ci samay soxna ku dëkk euh, xombol. Mhm. te moom xam nga defe naa ne way juróom bu jigéen foofu la dëkk. waaw donc euh, xam naa ne ay ay jege ay jegewaatoo la xamante nañ mhm. donc xëy na loo laa tax ñooñee problème mu mbokk la war a doon. Mhm. et peut-être sama jikko aussi xëy na def leen a neex ba ñu ñu jàpp ne waruta nekk en opposition de kii mais damaa mënut a jot ci moom jéem naa ko benn bés. ka am ku ma oot oot ne moom pare na pour def lii def lii def lii. lu mel nan par exemple. Euh, non par exemple. Euh, euh, un de ses parents ou de ses compagnons euh, m'a appelé pour me dire que et, il serait prêt à, à travers ma personne euh, à, venir au, niveau de son excellence Macky pour X mais bon ça n'a pas abouti. ban jamono la woon. ça fait peut-être un an ça fait peut-être un an. donc ci biir procès a ak ay Adji Sarr ci la bokk. non non si jamono boobu la. non non non non c'est c'est un peu avant c'est un peu avant mais euh, tout ça pour te dire que. lan moo nekkoon euh, mobile bi lan moo taxoon mu bëggoon par exemple rencontrer le président Macky Sall. ah moom moo xam euh, xëy na li ñu li comportement am ak ak doxaliinam bi mu xamee ne président Macky loolu du du jëfam du jis jisam du doxaliinam Euh, voilà Macky Sall nitu jàmm la nitu la paix vraiment euh, boo bëggee nekk homme politique bëgg a jëf jëf ak moom euh, boo bëggee jaar ci beneen yoon bu dul jàmm ak ak ak ak waxtaan ci jàmm mhm. évidement du ngeen du ngeen mën a déggoo mhm. loolu malheureusement c'est c'est c'est le cas de de monsieur Sonko bii ngay. léegi nga jéem ko gis ngeen wax mais jul sotti. non du man jéem ma ko gis de dafa am ku ma oo euh, ci waxtaan ne ma euh, dañ ma óolu pour moom walla mu daje ak président Macky Sall waxtaan ak moom. walla mhm. mais ça n'a pas abouti. d'accord li tax ma tudd ko mooy <laughs> ñu bari dañ koy tudd.